saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 ak kàddu ya fa Gaston Mbengue yëkkati Balla Gaye 2 ak Boy Niang dana taxawam du taxaw Balla Gaye 2 wane na boppam bëréewuma ak Boy Niang 2 parce que prouvé gul bëréewuma ak Boy Niang 2 ndax daa bëgg a brûler ay ba mu noppee ci la ko tere bëreeg Boy Niang 2 Gaston Mbengue le Don King moo ñëw génne ay kàddoom moom miñ doon laam-laamee jàpp ne moo bëgg a taxawal bi le combat fësal na boppam wax na dëggam Boy Niang 2 Balla Gaye 2 ne m'intéresse pas loolee la Gaston Mbengue xamle ñi non combat Boy Niang 2 Balla Gaye 2 intéressé wu ma combat Bombardier Eumeu sax intéressé wu ma maanaam guddi yi amul benn combat bu ma intéressé ñiy wax naan Gaston mooy dox sa suuf ngir taxawal combat yi damaa yaakaar dañoo réere mbir man Gaston Mbengue ragalu ma bay taxawal combat dina bëtu amul kenn ci mbëri ku mën a ne Gaston Mbengue woo na ma ngir taxawal sama combat je n'ai pas parlé avec les lutteurs ni avec leur manager encore moins avec leur parrain waxtaanuma ak mbër waxtaanuma ak manager ma ci benn mbër vocalu ma benn mbër envoyé ma benn mbër message contacté wu ma kenn ci ñoom du appel téléphonique du benn combat intéressé wu ma ci bu dee Modou Lo la ko intéressé mooy wut doole ba bu taxawee ci kanamu Ama Baldé mën koo won boppam depuis mercredi la dem France fa séene yokku cere dolli ñeex ay préparation digganteem ak Ama Baldé doore na ko ca France Modou Lo mu nga ca INSEP bu France ngir gën a waajal digganteem ak Ama Baldé bu ñu jàllee ca guy gi la di sempi moom xëy na ba yàbbi ab lancam moom la mu xamle ca sunu làmb mooy digganteem ak na promoteur bu bëgg bi le combat mu nga ca na promoteur buy dox sama diggante ak Eumeu Sène wax wax turam moom promoteur ba sax loolee la ma ñaan bul contacté xam naa noonu la contacté waa kër Eumeu Sène bu nu jàllee ca combat sokee dañ koy door bi war am tey ci samedi ji diggante Ada ak Bébé Bismi boobee combat moo nar nekk lit avec frappe bi mujj ci stadium Iba Mar combat spécial ya vie d'Asia dana bëreeg Koña 2 Baye Mandiaye Waalo dana bëreeg Hercule bu Grand Médine bu dee ci dimanche yi ca arène nationale foofee 2 Ziga moo fay jàkkaarloo Kaw Gourdin foofee combat spécial ba diggante contre la diggante laay goote ak daa fa ñuy jeexale mooy ca François Gomis bu Parcelles Mbooloo journal ba la mu xamle mooy Franc depuis mu bëre ak Mbaye Tine 2 ba léegi jaarut ci écurie ba entraîné depuis le 23 juin 2018 ba léegi Franc tegul tànkam ci écurie Parcelles Mbooloo di entraîné depuis boobee ba léegi Parcelles Mbooloo gisuñu Franc xamuñu fan lay entraîné jërë ngeen jëf mbokk yi li mu li gën a fës ci etu yéenekaay bi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg